leen nag mbokk internet yi mbirum rakk yi ak Marie Louise dellusiwaat na ñi lee nara doon ëllëg ay goro rakki ay dara daanaka jamono ji nii bëgguñu benn yoon sëy lee am seen ñàkk ànd ci boobu lee sëy tax ñuy def li ñu mën yépp ngir rek daal di dakkal diggante rakki ay dara ak Babacar Gueye comme niñ leen ko waxee woon ci vidéo bi kiilee di Diarra Gueye ak yaayam Nafissatou di waa këru footballeur biilee di Babacar Gueye jot nañu woo Marie Louise Diaw ngir am ci moom ay kàdduk seede yu war a mën a tax ñu war a xam ne rakki ay dara jikkoowul jikko bu baax wala amul melokaan bu baax ba war a tax ñu war a dakkal sëy bu war a am ci digganteem ak Babacar Gueye bëggoon na dakkal boobule diggante moo taxoon ñu daal di woo kilee di Marie Louise ngir am ci moom ay kàddu seede yu war a mën a tax ñu yàq diggante boobule waaye daanaka yooyu le woo yu ñu jokkoo ak moom ci téléphone tax teg ci di ko enregistré daanaka sax liñ ci jublu woon nekkul woon pour jox ko ñëpp waaye rek am lu war a mën a tax ñu mën a yàq xelu kilee di Babacar Gueye waaye ba ñu xamee ne loolu mujjul sotti kilee di Diarra Gueye dafa mujj sennal yooyu le waxtaan au grand public maanaam ne ko fang dàcc ci li nga xamante ne mooy réseaux associé ba pare nag noppi daal di joxoñ baaraamu tuuma kile di Marie Louise ngir nit ñi jàpp ne ab firange moo tax mu def lu ni mel jamono joo xamante ne kile di Marie Louise waxoon na kile di Diarra Gueye nekk rakk ci footballeur boobule di Babacar Gueye mu bañ a partagé yooyu le audio. bàyyil noonu rek takk après mu xam mu xam après mu am ci biir mu nga xam vrai yi kenn dama la ko doon yónnee noonu rek. parce que après vidéo audio mën na dem ba ci net beeg yooyu moo tax. ñu fàttali ba tey kilee di Jules mi nga xamante ne jotoon na fi xasa ay dara ba sax jàpp ne moom moom lay ab jigéen buy taxawaalu. loolu ci am booy Sénégal bi gis nga lii neexul quoi. mën man dama gis gars ci commenté dugal groupe whatsapp yi ma récupéré ko envoyé la ko nii Marie Louise moo ci xuloo ak ay dara waaw yaa mu gën a xam mais Marie Louise il a bien fait kii na ko bu baax da ci waroon boole waale gelu waale waale ko jëlee nday Mauritanie la nekkoon mu indi ko nday dakaar bi di ko tëddee rek ñàpp ndayam Racky Aïdara bi neexuma cottu ndayam du lekk la mën. waaye ginnaaw si bi nga xamante ne Racky Aïdara jot na waxtaan ak moom artu ko tax mu soppandi ay kàddoom jëmale ko ci Marie Louise joxoñ ko dëgg-dëgg li nga xamante moom la jotoon a joxoñ kële di ay dara jotoon na sax daanaka dem bay saaga kooku lee man nga ma répondre rek wala naa la jot waaye jégal mais Racky moom nee ko nag sëy sëy noppi ndayam Marie Louise amul nday dara lu mooy Marie Louise fii lay ñëw bu ñëwee fii gars yi di tëdd ndayam fii lay ñëw jour yi di tëddee ndayam man Marie-Louise am nay temps ma doon wax ak yow temps bu yàgg ba ne mu ngi woon fii li lay ñëw gars yi di kàtt ndayam rek ñu koy juutal rek doomu xaraam yi mu ñuy dafa perte instant yi perte na moo tax mu nekk fii di rëy ndayam man dama gis yi lire audio yi sànq dafa ma metti doomu xaraam la rek Marie-Louise caga bon la fii lay ñëw gars yi di juutal ndayam maa ko def sax man fa ma perte photo ay photo am rek moo ko pertul woon dama la koy envoyé yàq ndeyam mu am. ndaama ay waay ndaama nekk iñaan am na soxor am na waaye soxor a ngi am ci mim réew ba tey yow ab caga nga góor gu jot katta la góor gu jóg dugal la si góor gu jot yóbbu la vacance góor gu jóg fanaanoo la katta ba sa data bu tas Marie-Louise mii tamit tamit tamit est-ce que ça va ndax ce que ànd xelam Mère Louise rek lay tëkkaleel boppam xale bu ndaw shérif dox si diine ak lislaam tëdd heure jóg heure xam fi muy teg tànkam may wax mu ne noonu daa def coalition booloo ay nit ne day enregistré programme kii ndax mën naa yàq say jàmbur bi kii mooy mankan kunkan karankan kii moo téppi lu fa ndayam kii moo dof pour moom li da si am Mère Louise nekkati ni moom egg na fii moom xale yi si moom lañuy jàngee joueurs yu ndaw yi si moom lañuy jàngee kattante xale yi moo leen jàngal kattante yëngu loolu mbaa man Louise moo jàngal xale yi pro pro xaw ma pro man lañ koy wax xaw ma footballeur yu ndaw yi man Louise moo leen jàngal katante moom footballeur bu ñëw mu ibbil ka footballeur bu ñëw mu katta mu ne moom day yàq gis naar bële Chérif bële nga xam ne xale bu ndaw la toll si digg sëyam ñu gis ka xam ne kii ku baax la tànkam bi yem na fi mu war a yem takk ka mu ne mënu nekk ah tamit. man yoroon man dama yoroon ay photos sax mu nekkoon fii man photo woon naa ak moom fii yaa leen gis ne ñaan moom ñu ñu ñu ñu kii noonu ñu def ci kii bi noonu fii lay fii ñëw man maa ñaan ñooy ànd. ñaan ak sama beneen frère jour bi ñuy ñëw ak euh, yeneen copain yëpp Metz fii la ñuy jouer Metz France fii FC Metz ñooy ànd ñun ñëpp chaque jour ñooy ànd chaque jour kër ñaan la ñuy lekkee yëpp fekk naa ko fa maintes fois doomu xaraam la fii lay ñëw gars yi day ñëw bu demee Paris zori yi foofu laal ko foofu bu ñëwee met fii gars yi ay ay ayloo fii mu ñëw fii di ngand ngandul gis nga wóor na Seydina Mohamed sama téléphone boobu dafa dama ko envoyé Sénégal dama ko may sama sœur bi mais bu du woon loolu dinaa la war nday photo mi yëpp photo mi mu nekkee fi yëpp caga la moo gën a perte fii day ñëw fi gars yi di ñëpp ndayam non yéen ñi soxor la quoi kii dafa soxor soxor la. Modou Louis danga xam moom maa moom ñoo dëkkoon sébi ñoo bokkoon benn école bu ñu doon jàngee sébi dama ko xam bu baax da doon muuru bu baax da doon muuru mu jékki-jékki dindi ko ñëw Dakar nag soppeeku di gis see bi nand foofu rek commencé day jaay nante fii non ndaama cee ndaama man dama jommi mais Marie Louise ay doomaraam <laughs> waaye rakk bi mu wax bu mu saxar xam lu tax xam naan mbéjum kanam magam moo koy fajal boppam xam waaye moom réew mi ci boppam ñoo ko fajal mbéjam te te commentaire YouTube yi xale yi lu ñu waxalul Marie Louise ci lu bon dañ ko fàtte amul nit rek bu wax raki A wala B amul nit ñi defuñu Marie Louise mi dox ba ràbb topp façon góor bu ne ci réew mi footballeur bu ne ne ko écarter mu dugal moom mën na yàq kenn ak di sosalaate di duul ji ko yi caga ñëpp leen lañ ko xamee mooy ñaawlaam ñi ak mën sos mën fen ñoom ak góor jigéen ñi moo tax mu ne yéeyaay da ko enregistré koy tuumaal di ko sosol noonu di ko wax ay biir yu yàqu ay kii moo la may sa téléphone ak kee mooy sa farak patati patata ak sëy bi du am sëy bi du am la waxoon du sëy bàyyi noonu am na ba ñëpp fàtte Marie Louise bu moom mooy kan Marie Louise dafa yaakaar ne mooy yàlla di wax naan fekk la sa kër comme si rakki da ko ragal parce que Cheikh Khadim kii bu ko laalee ah, ñaf leen ba muy xoolee benn bët moo man man Marie Louise mënuma ko supporter billaahi lii dañ ma ko transféré Binta moo ma ko transféré ne ma waaye Marie Louise nit la ma déglu ko ba mu jeex ma dégg fin bi ay saaga ma ne waa kii di saaga awala ah wala ñoom abi dama joom bi cee xam nga sànq yaa ngi rëpp rëpp di ma saaga di wax affaire yi kenn xamul man lii man sax daf ma metti billaay wallaay talaay je te nga man ñaan jiwaluma loo xamante ne man war naa ko mën a waxal lu ñaaw wala mu def ma loo xam ne war man war naa ko def lu ñaaw au contraire man damay ñëw seen kër damay jox ma lekk ñaan daf may jox ma lekk waaw jàmm laa seq moom xamuluma ko dara xamaalewuma ko dara Marie-Louise xawma ko xamaanuma ko gis nga bi coolee amee noonu man bi ma la envoyé noonu affaire yi noonu ci ngoon xam nga dafa am sama benn cousine boo xam ne day ànd ak ñoom rakki lay àndal benn cousine yaayam euh, ak sam ay cousin ay cousin cousine lañ quoi Binta mu woo ma mu ne ma yow Gilles du médecin nga nekk ma ne ko waaw may médecin mu ne ma da nga xam ñaan ma ne ko xam naa ñaan bu baax kay mu ne ma yow Marie-Louise dafay ñëw foofu médecin ma ne ko marie kan mooy kooku mu ma te mu nekk si coowaleeg rakk yi ma ne ko non Marie-Louise moom mosuma ko gis médecin xamee ma ko fii sax médecin musuma ko fi gis kër ñaan moom dem naa fa moom maintes fois mais musuma xaw ma kan mooy Marie-Louise ko gis foofu. muy Musil wax ma rek ñun instant dañoo bëgg ay information yi leer ma ne ko billaay xaw ma ko mais boo bëggee information man ci man nga koy nga koy jaarale mu ne noonu dama xam ne yow yaa ngi mes te yow da ngay fréquenté da nga leen di fréquenté ma ne ko billaay xaw ma ko. na yàlla léegi tey dama toog bi ne taa woo ma noonu ñuy waxtaan mu na ma yow gis nga sa audio yi xaw ma lan ma ne ko fan audio lan. mu ne ma xoolal internet yaa ngi youtube xaw fan sa baat la mu ne ko sama baat man mun ne ma waaw ma jël sama téléphone ma woo sama cousine bi ma ne ko yow keroog bi nga may enquête affaire yooyu noonu yow lan nga def ba ba jël sama voix wala dara ngeen dem xaw ma da ngeen def jël sama voix yi dem dugal ko xaw ma youtube xaw ma lan mu ne ma man ma ne ko wax mais keroog de yaa yow rek yaa ma laaj si affaire ñaan fii yaa ma si doon laaj de mu ne ma attends xaaral ma xoo laaj ñoom abi mu jékki-jékki ma koy waat nangu ma jël ma woo ba sonn nangu ma jël ma waat ko ma ne ko Binta wax ma. excuse euh, appel moo ko daggoon nii léegi léegi ma ne ko Binta wax ma yéen lan ngeen def lan rek ngeen def yéen ba ba instant man sama der mu ngi yaa ku ne mu ngi may woo sama yaay mu ngi ma woo léegi nii di ma wax ay affaire audio ki kenn xamul sa voix lañ dégg xamul lan si la ma expliqué mu ne ma man ñun la buggoon espionné dañoo jël sa voix. léegi keneen mooy wax dañuy jël soo voix dugal ko xam nga yow yaa ngi fréquenté foofu fa ngay toog ñu defar suñuy affaire pour mën a dugal euh, Marie Louise billaay wallahi tallahi barki alxuraan karim maa ko woo téléphone mu wax ma ko nii ma jël la euh, kii euh, ki yor piano waali Benjamin ma woo Benjamin ma ne ko Benjamin numéro rakki laa soxla rakki ay dara mu ne ma lu xew ma ne ko liiral la youtube bi am na benn audio bu fay dox ma ne mais lii dégg naa ko mais seetlu ma bu baax mu xool ma ne mais booy lii sa voix la dama nga réglé ko ma jël sama numéro déedéet mu envoyé ma numéro Racky ma woo ma ne ko Racky yow xam nga ma ma ne ma xaw ma la de ma ne ko man maay Jules gis nga vidéo vocal bi ñu def vocal bi ñu dugal youtube man la man lañ ci man lañ ci dugal lan moo tax ngeen def loolu ak yéen fan ngeen jëlee sama samay samay vocal wala sama voix. mu ne noo abindooy bintaloo moo ko envoyé abindooy abindooy jël ko dugal ko dem jox ko xaw ma benn technicien la xaw ma lan mu dem defar ko monter ko ñëw ñëw ñëw kii la ñëw euh, dugal ko kii euh, YouTube pour mën a kii pour mën a avancer ko ma ne ko leen boo mu noonu loolu rek que Binta moo ñu xelal ne carrément yow yaa ak ñooñu yéenay fréquenté billaay affaire bi nii la deme wóor na yàlla man daf ma soge xaw ma affaire bi lan la ku nekk di ma woo di wax affaire bi jaaxal ma dama mujjee jël dugg internet jël gis na site yi dugal yooyu yëpp ñoom ñëpp woo naa leen téléphone ma ne leen man lii ñu def nii dañ ma ko sosal dañ ma tooñ billaay wallaay dañ ma tooñ sama yaay suba suba suba ah billaay wallaay wala li ma lay wax day plainte sama sama sama kii bi sama cousine bi nee na suba da kay jóobu si yoon billaay wallaay tallaay wali war naa alxuraanu karim dañ ma tooñ billaay wallaay tallaay li ma lay wax nii dañ ma tooñ tooñ nañu ba si kanamu yàlla nga woo ma di ma wax ay wax di wax ay yow si lii ak lii man ñaan ñaan jiwalu ma loolu billaahi wallaahi ñaan jiwalu ma loolu barki alxuraanu karim man li may dund fii rek man dafa talu ma sax nekk fi di lijjanti ay affaire ak leneen ak leneen leneen wali billaahi wallaahi tallaahi barki yàlla am naa lu ma métti trop trop trop trop billaahi am naa lu ma métti am naa lu ma métti trop trop billaahi dañ ma tooñ billaahi sama voix lañ jël dem dugal ko ci ay ojo dem defar ko monter ko ah ñëw nañ